وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عظمة ذاته وكله بما يسره وينفعه ولا يضره بشيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين السلام عليكم بك جلتي

ci màggug jaamu yàlla gi sëriñ Touba jaamu woon boroomam ba mu fayee ko lii nga xam ni sëriñ bi jenn yitte la yoroon benn yitte la amoon mooy lislaam mooy jaamu yàlla mboolem seen jullit yi ndax fii këru diine yépp a nga fi ñépp ñëw nañu wuy si la ñi nga bokkal lislaam bi yépp muy këru diine yi ba ci bitim réew ñépp ñëw nañu wuy si la teerule leen ñi nga xam ne ñii yaa leen woo ci ubbiteeg gi nga xam ni mooy ubbiteeg jumaay Masalikul naan jumaa ji nga xam ni yàlla moo ko fayee Serigne Touba ci màggug jaamu yàllaam ga nga xam ne bii moom la jaamu woon yàlla ci natt yu rëy yi nga xam ni suñu borom tegoon na ko ko nga nekkal ko fi nekk ci kanamu njaboot gi di dimbali ñëpp di tette ñëpp di woote jàmm ci réew mi di ko woote ci àddina bi yëpp ñoo ngi ñaan ci màggug suñu borom. yàlla na la fi yàlla yàggal wéral la li nga bëgg yaa ko xam Mbàkke yàlla na ko yàlla def te bëggoo dara lu dul yëkkati baatu lislaam baatu laa ilaha illa allah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa moom la sëriñ bi amoon di ko yëkkati moo doon dundam moo doon nekkam nga nekkal ko fi di ko yëkkati di ko yëkkati ngir diine ngir lislaam ñu ñu ñuy lay santale sa ñaar yu gan yu baax yi yëpp nga xam ni ñoo nekk fii ñuy doomu réew mi ni nga ko waxee kii di bàyyi kii di doom yàlla dajale leen ci sa kippaar àddina bépp a ngi lay sant ñëpp a ngi lay gërëm ñëpp a ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk jàmm ci réew mi yàlla na yàlla yokk wërsëg ci réew mi yàlla na yàlla yokk xéewal ci réew mi sëriñ bi li ma taalibe yi waxoon ni naa la ko wax mënumaa wax lépp ndaxte li taalibe yi yéene woon ëppoon na lool waaye jotaay bi moo xatta tàng waaye sëriñ bi ne la biir nii taalibe yëpp a ngi lay sant cant giñ la sant nag du dara tax li nga leen teg ci lislaam teg leen ci woote ci baatu eh, kal kàddug suñu borom gi di laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon maa ngi gàttal kàddu gi di la wax sa mbokku lislaam yëpp wuy si nañ la sëñ papa Malick mii moo fi tee too teewal sëñ Babacar Mansour ak délégation kër diine yëpp koo gisul it ñëw na fi te teel na ñoo ñëw ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant président Macky Sall di sant président Abdoulaye Wade di sant tamit Cheikh Mouhamadoul Bachir mi ngi ñu boole woon liggéey bi ba liggéey bi mel nii ba tey jii ñu jël ko di la ko jébbal nga di ko jébbal l'islam bi yëpp kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaye ñoo ngi lay biral tamit sëñ bi cant gu wér a wér a wér ma boole loon liggéey bi di ci jéetal sëñ Moussa Nawel mi nga xam ni dafa nekk ci sa ginnaaw doon sa taalibe doon sa lépp kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëriñ bi nee na ñi ngi sant sunu borom bu baax a baax a baax a baax. di sant borom liggéey bu rëy bii dundam gépp mu nekk diggante yàlla ak yonent bi di ko sant bu baax a baax ñi ngi sant mboolem kilifay yi diine yi nga xam ne teew si nañ fi ak ñi nga xam ne amoon nañ yéeney teew si fi wala ñu wa ñu yónnee wala ñu am ngànt ñi ngi sant ñépp mboolem bokk jullit yi mboolem bokk taalib yi gis nañ taxawaay bi bu baax a baax a baax kilifa ak diine gum mën a doon kilifa ak diine doon na ko muy mbirum boppam. xam na ne kenn jiituwu ko jë loolu ñoom ñëpp xam nañ ko wane nañ ko. di sant bokk julit yépp kenn ku ne góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku ne jàpp ne mbir mi sa mbirum bopp la noo ngi gën sant nag ci yàlla delloo leen li gën li mooy diglu gën sant sunu borom bu baax ci jotaay ñaari kilifa yi toog ci bokk ak ñun liggéeyu farata sunu borom ji nga xam ne moom la ñu bokk ñoom ñaar nag mën nañoo taxawal réew mi yépp kii day taxaw taxawaayu waajur kii day taxaw taxawaayu doom ñoom ñaar day mel ni taxawal nañu réew mi yëpp noo ngi leen di sant bu baax di leen sant ji jataay bii nu yàlla boole noo ngi gërëm bu baax ñoom nag ñoom ñaar nag la ñuy gën a ñaan suñu borom ñoom ñaar yàlla yéwénal seen mbir yëpp yéwénal seen diggante bu baax a baax bu ko defee mbirum réew mépp day yéwén ñun ñu ngi leen ñu ngi leen di ñaan ñoom ci seen bopp ñoom ñu jox yàlla njukkal sunu borom teral na leen ba noppi leneen lu ñu gis lu leen neexut ci seen bopp loola dogalu sunu borom la. sunu boroom jaamam bu mu cëral in fokk mu nattu la kon luñ gis lu leen naqari ci seen bopp rek sequñu ko yàlla moo ko dox ci defaram waaye yàqul fowul juumul te mooy def mooy dindi kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom ñaar ci jataay bi di leen ñaan ci sunu borom yàlla def liñ bëgg ci ñoom réew mi gën a defaroo ci ñoom ñi ngi leen di ñaan ñoom ci seen bopp itam ñu delloo yàlla njukkal sant ko ci lim leen defal nañu muñ ci lim leen teg te xam ne seen njëriñ képp lay doon waaye nañ ko wëlbati ñoom ñëpp jëf ko muy yéene ju rafet muy jëf ju baax loolu mooy nattu bi nu yàlla natt nun ñëpp tabaaraka alladi bi yadihi l-mulku wa ala kulli shay'in qadir moom mi nga xam ne moo bind dund ak dee ngir mu nattu leen ci dund googu ba ba su ba sunu borom sàkkee dund sàkk dee lim liñ ci wax leer na nañ defoonu ko lu dul defoon nattoo rek di ñu seetlu

nee na ñi ngi koy sant di ko yónnee ak cant nee na mën naa fab cantam jaarale ko ci Pape Malick mi mu jëm ci kilifa yi diine yëpp ta nee na tabaarakallaahu dara ump ci moom xam nañ ko bu baax ba muy gën di ndaw laa ko xamoon ba léegi si doxin wu rafet rek laa xam ci moom loolu rek kon ni ñu koy sant bu baax ñu ngi koy jote tant mu ne Pape Malick nee na ne Pape Malick dafa am lu bëgg sëñ bi ñaan ko mbokk yi fi daje di bokki deret kenn ku ne yéene bi nga am ci sa moroom yéene bi nga am ci sa moroom bokki taalibe yi fi daje bokki taalibe yi fi daje kenn ku bu rafet bi nga am ci sa moroom yal nay seen njëggal yowmal xiyaama yal seen njëggal yowmal xiyaama dara yàlla yàlla topp dara man na ko ci barke yonent bi mën na ko mën ci barke mag ñi waaw kon sëñ bi gisaakallaa waaw waaw jawri nit nee na sëñ Mbàkke yu fay nee na ñi ngi gërëm Aly nguy njaay mi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur bu baax ci taxaw li ko président santoon lépp def na ko